dolli sant yàlla bu ñu amee asan bi suñu xool sedd na ci yow noo li du neen mbéy wey mbaam nginduf jotuñu tuus ma sama gox dafa seet teg ci rafet lool ñun jotuñ ndox ni courant sa jëf ji rafet moo doon ñëpp kontaan teg si di la béggee def nga fi teranga gis nañ fi station Gorom 1 sa population ñuy kontaan taalibe Serigne Babacar Sy non lii du ay fo miir bi nga njoo ko yëngal waay asan na ko yëngal waay koy yëngal waay Assane na koy yëngal waay Assane na koy yëngal waay kase wuy wuy wuy xanaa nga bañ Assane kase wuy wuyoo nga di gay kase wuyoo yoo wax ma lii Assane kase wuyoo nga ni mairie bi nga joo bëgg yëngal waay nga joo bëgg yëngal waay mairie bi Assane na ko yëngal waay Assane na ko yëngal waay mairie bi nga joo bëgg yëngal waay nga joo bëgg yëngal waay mairie bi Assane na ko yëngal ko di Canal la di sa population Mor. tax mënuñu la fay yaay buuru ñun yaay buur ndax da nga kontaan sa rew ñun yaay suñu excellence ndax yaay ñu doy nak yaay ñu doy ngañ yaay ñu doy mère bi ngañ joo bëgg yëngal waay ngañ joo bëgg yëngal waay mère bi asan na ko yëngal waay asan na ko yëngal waay mère bi ngañ joo bëgg yëngal waay ngañ joo bëgg yëngal waay mère bi asan na ko yëngal waay asan na ko yëngal waay kase wuy wuy wuy xanaa nga bañ asan kase wuy wuy yoo ngañ mbooloo mi yëpp di leen sant di leen gërëm di jéggalu aussi ci jotaay bu yàgg bi maa ngi jiital ci nuyoo bi suñu papa Ndonga Sarr yi le chef du village di ko remercier di ci teg kilifa gu mag muy shérif di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo suñu papa Assane Dia le directeur de l'école Moussa Ndiaye ak suñu papa Mbaye Diop ñu jottali ko bépp kilifa bu fi teew di nuyu jeunesse bi fi teew yépp di nuyu aussi jigéen ñi fi teew ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni tey jii li ñu gis waaye mbaam dalal ñu suñu xel lii day wane ni waaye mbaam coalition Benno Bokk yakar bi nga xamanteni ni nii Dieng moy tedd liste bi moy borom waye mbaam di wax ni ñun APR suñu mentor di le président de la République moni ni un Sénégal émergent ci kaw Sénégal émergent bobu ci loolu monsieur le maire ngeen job di dox ci loolu aussi lañuy dox ñu responsable yi ka fi fii ngeen du Foye Mbam je pense que li waral bis bi tay day dëggal lolou sur fonds propres j'ai débloqué 7 millions de francs pour construire deux salles d'accouchement chantier bi commencé won nañ ko bu yagg mais si ndimbalu yalla paré nañ ko tay ba équiper ko en matériel dinañ ci ñëwaat té li day wane ni Wayembam am na luñ fi def lo xamanteni ni mën nañ ci tek baram monsieur le maire mu ngi fi construire benn foyer des jeunes bu moderne mu ngi en phase de finition léegi mu paré monsieur le maire jox nañu ambulance recruter recruter na fi ci poste de santé bi personnel plus de 3 personnes qui été maintenues. chaque fin du mois mairie bi fait. leen fay. en charge. lotissement a été doon fi mairie porté on a distribué plus de 100 parcelles uniquement pour Waye kon ñun am bilan tout récemment nous nañ 100 lampes à Waye pour faciliter l'éclairage. ko ñu ñoom mère Mariama ak Zéni bañ fay géej dafa lëndëm koruus mais léegi bu fa puusa waddee mën nga ko for ñëw nañ fa tout récemment aussi financé fa jigéen ñi jox leen ay chaise chaise yi des dee demee dinañ leen ko mottali ñu ngi ci gàmmu yi ñu ngi ci emploi des jeunes ñu ngi ci lépp bu ñu waxantee dëgg nag ndar xëyul sotti ñu ngi ci éducation bi monsieur le maire jël na fi en charge plusieurs étudiants et élèves yoo ont chaque fin du mois moo leen doon fayal ba niñ avons formation aussi def nañ deux salles de classe ngeen fi aussi ñu ngi fay taxawal école mairie bi moo joxe espace bi plus de 2000 mètres carrés actuellement l'école est en phase de finition kon trois villages yi monsieur le maire Ndiène Diop am na fi bilan il faut ñu waxante nit ñi dëgg mais li ma wax léegi rek ndar xëyul sot mais lii ñuy sàkku nii bu ñu yàlla mayee ndam incha allahu bi dinañ liggéey waaye mbaam lu tax ñu wax loolu lu tax aussi ngeen war ñu jàppale élection bii bële président de la république lañ investiroon ñu mobiliser wu jàppale ka bii passé di législative yi monsieur le maire Ndiagne Diop lañ investiroon ñu mobiliser ko jàppale ka mais bi pa nak seeni doomu dekk lañu investir si liste yi muy Ibra Sarr mi taxaw di menace Ngendouf di sen frère Assane Bey sen dom mi di wax ak yeen lañu investir si liste yi ak ngone Dia mu don premier fal politique bo xamanteni ni soxla nañ ko kon nak ngir yalla ni ngeen daan ko defé si présidentiel bi jàppale Macky Sall législative yi ngeen jàppale Ndiagne Diop dañ leen di tàllal suñu loxo tamit élection bii d'après liñ fi lim yëpp ne moom lañ def si dëkk bi ngeen dimbali ñu bañ a tas suñu yaakaar fal ñu le 23 janvier bii di ñëw. boo leen ko defee doo leen ko réccu tey jii képp koo leen fi mën a jàppale balaa defar dëkkam balaa defar sa dëkk defar dëkkam ba pare la preuve en est que ñi fi ñëw ñëpp di laaj. bëtu waaye mbaam masul xonk ñu gis leen waaye mbaam masul nekk ñi bànneex ñu gis leen muy neex muy mett ñun ngeen fiy gis bu élection yi jàllee aussi ñun ñooy continuer nekk ak yéen ñun doomu dëkk bi lañ mënuñoo daw mënuñoo daay lépp lu ñu am suñu dëkk yi jëm sa kanam moo ñu ko gënal lool moo ñu bàyyi si politique bi tey ji bu doon teraanga rek mën nañ dem topp suñu liggéey bële ñun dara feesul suñu bët mais am na loo xamante ne à travers la politique lañ ko mën a amee muy yoon wii politique rek moo ñu mën a permettre ñu defar suñu yoon yéene baa ngi fi mais mooy matalewu ko bu ko mooy matalewoon dañuy làmb defar ka comme que nag si politique lañ mën a jaar jàppale leen ñu si politique bii ñuy def ñu jéem a gagné Wayembaam largement li ma gis kat bu soobee yàlla monsieur le maire Ndiagne Diop day gagné élection yi dëkk yu ñu dem yëpp gis nañ une très forte mobilisation des populations derrière lui dëkk bu ñu jógee dem ci beneen yëpp a nooy nepp nepp nepp nepp nepp kon nag nañ fexe ba Wayembam bañ a des gannaaw au soir du 23 ñun ñu bokk ci ñi gën a gën résultat ci commune de Bambilor bu ko defee buñ teewee foofu dinañ mën a siggi poñe mu defar suñu dëkk bii bëgg nañ buñ gañawaatee am na ay lotissement ñu war a defaraat yu ñu war a entamer bu paree incha allah comme niñ ko defee woon dinañ xool jeunes yi gën a yellool ci parcelles yi ñu jox leen ko dinañ xoolaat groupement yi ak tuur yi nuñ leen di renforcer joxaat leen ci parcelles ñu mën ko jaay gën a mën a liggéey. bu ñu yàlla mayee ndam incha allah aussi ku nekk xam na ni waaye mbaam jigéen ñi soxla nañ marché moderne loolu dinañ ci xar suñu tànk tubéy ba jëm ko fi taxawal foyer bi moom balaa maire di toog ci siège bi dina ko àggale incha allah bu ñu gañee aussi dinañ xoolaat gën a organiser suñ politique dëkk bi dañ koy def ay selul groupement yi dinañ leen boole suñu bureau politique présidente groupement yi la ñuy jël dugal leen ci bureau bi jeunes yi aussi léegi maa ngi koy wax góor a nee naa que fu jeune nekk ci mbaam dinañ jël si association yi porteur de voix yi nekk ci jeunes yi tamit dinañ jël boole leen suñu politique ñuy ànd di liggéey jéem a soqali suñ dëkk loolu daal lañ amoon lu ñuy wax mais bala ñuy tëj dañuy gërëm docteur Ndoye bu baax a baax a baax grâce à docteur Ndoye tey jii Wayembaam am na un échographe moderne boo xamante ni dootul jar benn jigéen di déplacé wu di dem Tëngéej te loolu buñ ko amee si moom c'est par le biais de Cheikhou Diop Cheikhou ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëmaat Ibra Sarr yi ak responsable politique yi fi teew yëpp ñi jóge Ngenduuf Père Daouda ñu ngi lay remercier oustaz ñu ngi lay sant oustaz ñaa bu baax di leen gërëm di leen wax ni li fi xewoon keroog muy violence bi mook politique ñoo ànd seytaane fu mu xaju rek lay dugg mais incha rab rabbi dootu fi amati parce que kilifa yi li leen waroon muy dox tànku jàmm ñoom ñëpp dox nañ ko kon nag ñu ngi sant ñëpp di yemale fii kàddu yi di présenter nit ñi bulletin bi moo nekk nii Ibra yëkkati ko bulletin bi moo nekk nii voilà marron bees bii marron bees bi le 23 di ngeen ko fekk si taabul ja le 23 jël leen bulletin bii ngeen dugal ko ci enveloppe bi ñepp jot si lool la leen ñaan di leen sante di leen gërëmaat bu baax baax di gërëm également wa poste de santé bi si bopp bi l'infirmière Dibor nek ci kaw ñu ngi koy sante diko gërëm bu baax a baax baax gis nañ taxawayam rafet na lool di gërëm le chef du village de Ngendouf Djibril Mar mais and ak mom ñuy liggéey ak ñom Awa Fall Fatlay